asalaamaaleykum chers internet ñoo ngi leen nuyu bu baax baax kontaan encore une fois di jàkkaarloo Banlieue ñoo sama mag sama xarit moom moo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sama yaafaal bi. <laughs> kontaan nañ di jàkkaarloo ak yow encore fii si Banlieue Pro. mbaa ngi am ngi nuyu fidèle internet yi nga su ñu ngi ñuy nga xam di Banlieue Production di wax ni tey nag ah, moom ngeen am ci li nga di leçon du couple tey dinañ ko waxtaanee daal di faram-fàcce ba mu gën yaatu ànd ko ak sama bu ñaawal bi moo kontaan nañ bu baax a baax comme ni mu ko waxee rek tey moom la ñu àndal ci seen émission di leçon du couple ñuy waxtaane li nga xamante mooy gigolo gigolo nag moo nekk loo xamante ni maanaam góor ñi dañuy nekk di entraîner macha allah ba ku leen gis jigéen bu leen gis fan leen sopp leen lool waaye duñ ko jëmale ci seen moroom bi dañ koy jëmale si li nga xamante mooy mag ji moom moo loo xam ci loolu <laughs> ah xam si loolu dafa nekk affaire boo xamante ne si. ci suñu réew dafa am ñoo xam dañ ko def métier. dëgg la parce que am ñoo xam ñu ngi ci yor seen i wayjur am ñoo xam ne ci la ñuy dund di ci sol yére bu rafet. Eh, mhm. di ci di ci di ci di ci di ci di ci dawal oto bu rafet di ci dëkk ci appartement yu luxe donc kon day nekk loo xamante ne si lu société mhm. eh, oh, bi di dund la. te muy ñaari fànn wax nga ko sànq xale bu góor bi nga xam ni day entraîné ba ceene dem di wër benn mère boo xam ne da koy fay xaalis muy am ak moom ay rapport de sexe wala mère bi nga xamante ni kàttanam mu dem wëri benn xale maam day ñaari chance kii day wëri moroom kii wëri moromam en tout cas lu am la loo xam xamante ne si dañ koy dund ici fii au Sénégal. Mhm. comme ni mu ko waxee rek nee na lu am la loo xam dañ koy dund fii si Sénégal dunduñu ko feneen fu dul Sénégal waaw moomoo tey jii ban ban lan ngay lancé si jeunes yi nga xamante ni tey ñoo nekk di def loolu. maanaam entraîné na. xam nga xam nga day ñaari fànn yoo xam ne day am ñaar am. Mhm. kii dem seeti maire bi peut-être que plaisir mën na ko bañ a yóbbu mhm. c'est-à-dire benn objet mën na ko yóbbu moo xam muy oto wala xaalis wala mhm. wala bi ay biens yu mu soxla parce que man je me dis que maire bi ngay seqal dara nit ku nekk nag ak saytaane mais man dama di maire bi ngay seqal di jox sa doole nga demoon takk benn xale nekk ak moom moo avantage te donte amoo leen dara waaw mais mais bu fekkee ni da nga gis ni dafa am gagnant tey maire bi da ngay dem mu joxal boppam joxal nga lekk joxal nga naan après joxal benn weccer nga def ci sa poche am nañu am na jeunes yu waral du ñu liggéey def dara dañuy xëy tëdd nelaw yow fajar dem géej entraîné bu guddee ñu dem salle après ñu tëdd bu guddi xaar ñu dem dóor ñëw àggale seen maanaam daal ñoom loolu lañ jàppee seen dund loolu moo nekk seen waaw parce que ñu ngi ciy gagné ma dañ ciy gagné parce que ñu ngi ciy gagné ñu ngi ciy ah ñu ngi leen jox xaalis <laughs> waaw yow bi sa affaire leer en tout cas kon tey jii mën nañ ne dañ ci am de responsabilité bu parce que dara sa doom nga nekk au lieu que nga conseiller ne ko nga def di ak mm. mais a chaque fois yaa ngi koy xool bëtu yoo xamante day ñaaw. non part de responsabilité man je me na cee bañ ñaaw. Mm. parce que xale bu góor bi def ko te yàlla tax. Mm. am leen di ñu def ko. maire yi laa wax. waaw léegi bu xale bu góor bi bañ a maire dina ko ci am. a dem est-ce que maire bi dina ko ci maire bi est que bu ko woon xale bu góor bi ne dama nga liggéey est que xale bu góor bi dina am xelu def loolu. xale bi mu ngi liggéey la moo la ci wóor ñu koy fay de la moo la si wóor ah li muy def du liggéey xale bi mu ngi dem jël dooleem. fanaan eh. ci néegu magum jëmm jox ko sa doole xew ma jox mu fay la loolu liggéey la. kon xale kon maire yi amuñu ci part de responsable. amuñu ko ci parce que ku nekk sa bànn ak yow part de responsable kon xale góor ñoo bañ liggéey xol lu yomb di def. Ah, man bu doon man wax dëgg yàlla so bañee pour man soo bañee maire bi du am lu lu mu ko ko def. Mm. donc tamit euh, benn benn côté mun naa ci mun naa ci mun naa ni maire yi. Mm-hmm. ñu dem wër seen morom jaamu ci Yàlla mais am na koo xam ne sëy ñoru ko. dëgg la donc mun am na bien boo xam te bu jëlee benn Modou Modou Gueye. Mm-hmm. danaan Modou Gueye day sama alal. dëgg la donc day xool benn saa bu santé boppam day dem xool day dem ci benn salle am na ci tey boo fekkoon da nga dem ci salle yi nekk ville da ngay gis maire am dañu gaara seen i 4x4 wàcc seen i vitrine nga xam ne ñii dañu xool ku ñu yóbbu dëgg la surtout ñun ñi nga débat dañuy tourné ci yenn lieu ba benn ba mu guddi da ngay gis yoo xam dala leen kii nii am na lu muy am na lu muy jël si dem maanaam da ngeen ma baal ci kàddu yi comme jigéen ñi nañ koy wëree ci góor yi maanaam tey góor yi noonu lañ koy wëree tamit si jigéen ñi ta ta xale yu yi tey dañuy dañ ko def tendance ñoom ni ci dawal auto ñu ci ay iphone ñu ngi ci tëdd ci appartement yu luxe kan moo koy fay benn maire lañ fay muy laal am na xale góor yoo moo xam dama yàlla ya baal dañoo bëgg gu nooy neex ñoom seen dara du yëngatu duñ sonn duñ ñàkk ah, duñ def dara ñoom dañ toog am lépp waaw ah, te mu amee ci góor ñi aussi tamit noonu amee ci jigéen ñi am na xale bu jigéen ba rafet ah jox ko dem xanaa moomoo da am ñoo xamante xam nga leen ñu dund loolu <laughs> dama dugg loolu non <laughs> dañuy waxtaan rek xale bu ndaw xale bu jigéen bi nga xamante ni mhm. day dem ci benn paa dressé ko paa bi daanu jox ko som bu dëgër mu dem ñibbi mhm. parce que xalaat na ni bu dee paa bu da ci euh, lu ci bëri ñàkk risque moo ci dugal nit parce que tey bu fekkee da nga xale bu góor entraîné wut ceene jël sa moroom rak soo mais moo ci am moo xam ne am na ñetti euh, doom toll na yow xale yi jigéen ñi leen di violé xale yu góor yi tamit noonu leen di violé waaw bu fekkee day am danger ci mère bi lay metti mais en général xale bu góor mooy fekki mère bi fanaan ak moom mère bi fay ko xaalisam mu génn dem ñibbi. su boobaa kat maanaam léegi xale góor yi ñooy violer seen bopp kon. ñooy violer seen bopp léegi nag bu fekkee xale bu jigéen bi xam ne bu dee moroom daf koy gaañ da dem xooli benn pa benn boo xam dooleem jeex na mu dérese mu duggee daan jox ko 100000. mu dem xam naa ne bés <laughs> gis ngeen ko ñoo ko déggantoo léegi kenn violé tu kenn ñun ñii jigéen ñi wala ñoom ñii di góor ñooy violé seen bopp. Mhm. dëkk bi maanaam affaire yi day cas yi day gën a critique di dem. xam nga xam nga Sénégal dama dama koy wax chaque fois ci émission yi ñu foog ni dara la. bu njëkkoon génération dañuy toog su guddee dañuy taal ordinateur di seetaan di seetaan film mais léegi amatul parce que li ngay seetaan yaa koy def. dëgg la donc léegi bu réew mi tollee foofu nag après a xool. mais est-ce que nekkul tamit ci yenn âge nga xamante ne xale yi dañuy teel a yor téléphone surtout si loolu wala dañuy teel a am accès si yenn parties yoo xamante dafa sensible ci internet ñu gis yenn yoo xamante lu bëri amaana gis bu ñu koy gis mun na yëngal seen mun na leen yëngal wala gis bu ñu mun na leen. mun na influencer si lenn ba ñu def dara loo xamante da leen di lool. xam nga xam nga xel. Mhm. ak jikko bu bon loolu. loolu jikko ci jikko bu bon ci nit la ci éducation ci éducation bi ci la bokk mais des fois nit ki génn gis loo xam du cëram mu roy ko donc damay gis parfois dañuy attaqué naan euh, li gars yi di wane ci télé wala li ñuy bind baaxul mm-hmm. alors que nit mën ngay lu bon te doo ci nekk alors que nit mën ngay lu baax te loolu nga bon cest à que plaisir dafa nekk loo xam dafa individuel ci nit li tax nit ki di ko yëg wala li tax muy def rapport bi kooku moom la engagé donc nag li ci ëpp solo mooy buñ ko def nañu nañu suturaal suñu bopp mais da ngay gis koo xam day def dara pare weer boppam ay nit ñi di ko gis donc est ce que loolu am te chaque fois dañu naan dañu naan dañu naan dañu naan xale yu góor yi dem ci mairie mais xale jigéen dañuy dund lu gën a pur. Hmm? lu gën a pur bu njëkkoon da nga daan gis ay ay ay jël ay ay genre ay ay ay ay ay ay banana ay tout di ko utiliser nga xam ne booy dañ ko doon utiliser. ci seen sexe dañ ko doon utiliser ay tàngal bant bi mu sóori génn Sénégal xale dañ ko doon hmm. utiliser. Hmm? ko doon utiliser góor mais léegi yëpp jëlee nañ ko fi parce que léegi am nañ accès ci góor góor jafetu parce que tey mën nga dem jàngi wàcc jaar sa kër copain mhm. te tey ji am na xale yoo xam dañuy dem fanaan seen néegu far dama yàlla ba am nañu xale yoo xamante sax wala élèves yoo xamante du ñu yàkkamte jot parce que vacances bu jotee day dagg seen activité yëpp parce que man seen mën naa ne ci année scolaire bi dañuy profité di def lu ñuy def moo tax chaque jour si année scolaire da gis cas yoo xamante maa la gëri taay mhm. lu leen neex mooy li ma la wax plaisir ku nekk da koy yëgee nu la neexee am na ñoo xam ne daanu jara na leen yëkkati cent mille francs am na xale bu jigéen buy jógee fii nii mhm. passe cinq cent dem tëngeej far bi tëddee jox trois mhm. am ñoo xam dañuy jaay seen bopp nga xam ne ñii ñu ngi jaay seen bopp jël ci mhm. oto wala yor ci am ñoo xam dañuy jaay seen bopp gratuite dañuy dem seeti benn muudu géey rek jox moo dëggee bis bu la jàppee dinga xam ne di leen fàttali la yéen ngi seen biir Banlieue Pro thème bi nga xamante moo nekk gigolo ma ànd ak sama mag ji nga xamante mooy moomoo ñu koy waxtaane fii moomoo tey ji ban ban ban solution rek nga mun a jox solution bu gàtt rek nga mun a jox ci loo xamante ne mooy meer ñi wala li nga xamante mooy xale yi nga xam ne ñooy góori ji paa yi non yomb na euh, mais loolu pour mu am il faut état am benn contrôle ba mu ciy dox. parce que tey soo xoolee auberge privée yi bari na ci réew mi. donc mën nga bàyyi sa appartement. tey mhm. par exemple da ngay gis benn kër boo xam ne amul contrôle tey ñu ngi naan ñu ngi naan ñu ngi naan drogue bi nii caga yi nii caga nii tey Sénégal mën nga compter caga yu bari amuñu carte. dëgg Sénégal mën nga compter ay xale yu jigéen yu yoo xam dañuy dem ci ci euh, privé yi di def lu leen neex mhm. te duñ ko contrôler loolu pour mu jóge fi état mooy contrôler lu mel noonu ki nga xam day jaay boppam mu am ay xam ne fi ñu koy fekk dañuy xam ne kii day jaay boppam mhm. ki nga xamante ne si mooy mooy mooy kii fi nekk privé yi ci nekk mhm. ñu xool naka lañ leen di saytu mais donc ñi nga xam ne ñu ngi jaay seen bopp muy kaw ak góor kaw ak jigéen dëgg la àdduna dara yàgg waaye tamit di leen fàttalik rek état mënul def lépp mm. des fois a war a xool seen doom bi bu baax yéen ñii di mag ñi tamit wàccee seen bopp di euh, ni nga koy di bañ a di sikk loo xamante yow sa kii mën na la doom la mm. wala kii sa moroomu sët la sax laay wax mm. ngeen éviter ko bu baax a baax parce que cas yooyu moo fi indi problème yoo xamante yu dul jeex ñu gestuwaat bu baax a ñi nga xamante ne ñooy bàyyi seen doom yi seen biir kër euh, a baax

waaw xanaa di di wax ni nañu moytuwaat rek te gën a bàyyiwaat suñu xel que ni am na yu bëri ñuy def euh, manqué wax sànq àdduna yàggul donc waa góor waa jigéen war nga gën a a a gën a sàmmat sa bopp mhm. euh, contre naa ko trop euh, a dool digg doole war a jaamu yàlla amul leen looy def lu dem di fanaan ci appartement ndax benn xaalis xaalis boobu ñu lay fay soo liggéeyee mën nga ko am donc nga jéem a góorgóorlu ñafe sa life mu ëpp xandement nga dem jaay sa bopp parce que mën nga fanaan ci a doy na waar doy na waar mën mm-hmm. ngeen tëdd ba guddi affaire yi neex bâtiment bi daanu seen kaw après doo leen xam loo leen di rendu compte léegi nañu nañu dem nekk ci leneen daan yàlla baax na yàlla baax na bu boobaa sax yéen autorités yi sax ngeen di euh, créer problème parce que ñoom boo leen fa desee na ma yàlla baal du ñu xam la la ñuy wax mm. du ñu xam la moo leen rey du xam exactement la ngeen nekk li doon def ci biir néeg bi te mënuñu leen tuumaal mm. ci loo xamante ñoom xamuñu ci lan la lay mm. wax euh, ñi di la seetaan waaw di wax fidèle internet yi wéy leen di di di seetaan partager fi nga di seen émission yi nga xam ne xale koy def def mu daal di yanjulo tubaarikàlla comme ni ma ko waxee saa chaque fois chaque jour ñu indil leen thème bu bees te di indil ci réew mi waaye dina am njëriñ si nga xamante ni ñooy yi ngeen ànd seeg seen xarit seen soppali li mu nekk leçon du couple fii ci Banlieue Pro maa ngi nuyu wax rek à chaque fois abonné leen loo leen di abonné rek mu nekk seen njëriñ lu baax rek lañ leen di waxal te duñu wax mukk lo xamanteni day ñaaw merci beaucoup